Euh, tey nag euh, dañoo ñëw fekk si fii ki nga xam ne moom mooy euh, monsieur Momar Ndao di président bu association des consommateurs sénégalais ASCOSEN bu fas yéene waxtaan ak moom ci daal fi nekk nii njëg yi nga xam ne nemmeeku nañ ne cher na ak yeneen jafe-jafe rek yoo xam ne jëm na ci wàllum consommateur yu Sénégal balaa ñuy sori rek kon dañ koy jox euh, nuyoo ki nga xam ne ñoom ñooy mbokk internet monsieur maa ngi seen seen <laughs> euh, monsieur Momar Ndao sama laaj bu njëkk rek euh, damay ñëw ci li nga xam ne moom mooy fi nekk ni ana ban taxawaay la asko ASCOSEN am si jamono joo xam ne njëg yi rawatina lii di daare yi Eh, cher na population bi ñu ngi koy eh, joytu ana ban taxawaay las seen am eh, jamono ji taxawaay bi ñu am mooy taxawaay bi Sénégal yi yëpp am maanaam nit ñi dañoo sonn ci yokk yi sonn ci yokk yoo xam ne teguñ ko ci yoon sonn ci li nga xam ne gouvernement bi ki ko fi représenté mooy ministre du commerce deful liggéeyam suba deful liggéeyam ngoon loolu moo waral pëccxoo bi nga xamante ne bi moom moo am actuellement ci marché loolu nag ñu ngi koy dénoncé pour dénoncé mun a yem ndax tey jii boo xoolee ni situation yi demee amul benn benn benn benn benn benn benn réglementation maanaam lu waay neex def lu waay neex euh, jaayee te kenn fekku la ci kenn du la ci fekk looloo tax ñun vraiment ñu ngi jox artu ki nga xam ne mooy ministre du commerce pour que vraiment mu jël rapidement décision yi nga xam ne moom la ñu xaar moom que ñu maîtriser li nga xam ne mooy inflation Euh, yaa ngi koy wax léegi junj nga ko ay décision ana yan décision yoo xam ne ko ñu urgente la buñ ko waroon jël te jii euh, ak nan nañ koy jël décision yi urgente mooy fixer prix munoo nekk ci réew nit ñi di def lu leen neex ci ay produits yoo xam ne produit produit de première nécessité la ñuy jaayee ay soble ay yenn prix ñuy jaayee yeneen tout amul benn njëg boo xam ne yokkul da ngay ñëw ci boutique di jënd waa ji ne la deux cent nga ñëwaat cinq minutes après fek ko jarbaat bi wala mu jaay ji mën na la trois cent même produit même prix même boutique astamaan nag boutique boobu boutique ko koñoo koñu prix yi tolloowul te amul kenn ku respecté dara li ko waral mooy ministre du commerce moo croisé le bras waaw loolu nag moom moom moom mooy la situation mm-hmm. bu ñu sukkandikoo ci li nga xam ne moom mooy euh, ANSD xamle nañ ne li nga xam ne moom mooy prix importation yi yokku nañ ba euh, progressé nañ ba lu toll ci trente virgule six pour cent Euh, par rapport ak euh, juin deux mille vingt et un euh, ana tey lan nga yaakaar ne moo tax pousse bu bu bu gaaw boobu bu bu kawe boobu lan moo ko waral. li ko waral rek mooy li ma wax su fekkee ne tey jii da ngaa considéré li nga xam ne mooy yokk réel bi nga xam ne mooy yokk ci bitim réew diggante produit yeeg transport be dollar beeg yooyu. Mhm. yokk yi tolluwul no mais boo xoolee li mu war a tëbb fii ci biir réew mi tolluwul noonu mais bu fekkee lu nga neex def lu nga neex jaayee. da gis loo xam ne 500 lañ ko doon nga ñëw ñu ne la 1500 te teguñ ko ci dara maanaam dara bu yokkee dërëm bitim réew dañ ko war a calculer ñaata la war a tëbb ci biir réew mi. Mhm. mais loolu ministère du commerce moo ko war a pour nga xamante ne bi ki nga xam ne moom mooy commerçant bi du profité ci situation boo xam ne dafa am lu yokk bitim réew mu yokkaale bénéfice am te loolu mooy am fi toujours. ndax da ngay gis ni ñi nit ñi fii ni nga xam ne moom la commerçant yi di def mooy buñ déggee ne dara yokk na bitim dañuy yokk seen bénéfice loolu mooy problème. yenn saa sax day fekk seen am na stock bu ñu jëndee woon prix bee te jeex. moom laay wax maanaam teguñ ko ci dara teguñ ko ci dara lu mooy seetaan gi nga xam ne ci la ministère du commerce nekk di loolu rek la teguñ loolu rek lañ ko def. bu weesoo tey euh, yooyu nga wax nga ministère de commerce euh, war na ko def artu yi ngeen ci artu euh, ana tey par exemple ASCOSEN est-ce que accompagnement peut-être bi war sur le terrain ak taxawaay boobu yéen a koy amal. waaw ñu ngi koy amal parce que ñun chaque jour dañuy am relevé yi fi affaire yi toll chaque jour lu jafe am lu ko waral li yëpp dañ ciy nekk di xool di ko lijjanti di xool en même temps dafa am lu ñu wax comité des prix comité des prix bi moom mooy ci gouvernement bi comité bi nga xam ne si jafe-jafe amee ba nga xam ne njëg yokk na bitim réew ñun ñoom la ñuy waxal pour ñu def ay subvention wala pour ñu def ay bàyyi ay droit de douane wala ñu bàyyi li nga xam ne mooy ay TVA loolu loolu ci lañ nekk mais dafa am produit yoo xam ne gouvernement bi xoolu ko pour fi nga nii muy xool mooy ceeb diwlin suukar farine ak carburant yi mais yeneen yi ci yëpp dañ ko toog di ko seetaan loolu jaaduwul loolu moo indi bëccëg xoo bi moo indi problème yi ñu parce que ay géej ak yéen sax dañ ko yokk maanaam dañoo yokk yokk yokk amul dara loo xam ne mun nañ ko teg ne way nii la demee nii nii la demee mu nekk loo xam ne lu juste la jaar yoon yoo xamante ne bi moom mooy njëriñ te loolu c'est anormal loolu rek la situation bi loolu rek la. juñu nga ko léegi état peut-être par exemple koppar yi mu jël euh, dugal ko si li nga xam ne moom mooy njëg pour njëg yi wàññeeku euh, wax nañ fi tam de salaire ndax dangaa gis peut-être loolu dafa nekkul ay mesures yoo xam ne yu efficace la. waa xam nga tey jii boo xoolee ne état def na ay milliards yu bari diggante li nga xam ne mooy courant bi li nga xam ne mooy carburant bi li nga xam ne mooy blé bi ak yooyu. mais dafa am yeneen produit yoo xam ne tous les jours maanaam lépp lu ñuy jaay ci marché bi lépp looy lekk chaque jour suukar ak diwlin ak ceeb mooy li nga xam ne moom lañ jël en considération hmm. waaye du suukar ak diwlin ak ceeb rek. est-ce nga koy gën a consommé la moom la Sénégal. mais même yooyu noonu même yooyu noonu suukar ak diwlin ak ceeb prix yi nga xam ne ñoom lañ annoncé sax prix yi nit ñi respecté wuñu maanaam tey jii boo xoolee foo dem ci boutique boo dem lépp loo fay jënd yokk nañ ko ci loo xam ne looy soxla tous les jours la. te dafa am lu ñuy wax produit de première nécessité produit de première yi moom yëpp dañ ko waroon a maîtriser pour ñu maîtriser ko nag il faut que gouvernement bi def liggéeyam ki nga xam ne mooy ministre du commerce jël arrêté ñu def mise en œuvre arrêté yi hmm. ministre boo xam ne boo waxee moom ngi ci leneen affaire politique lay toog toog plutôt que lijjanti li nga xam ne mooy problème bi nga xam ne moom lañ ko nommé. te yéen yéen a ngi ko ci artu. parce que mais bien moom dafa mba taxlu loolu la situation bi nag. dafa am niveau boo xam ne bu fa tolloo il faut que gars yi gars yi wax li leen métti situation bi ngay gis ni nii ay élection yi gars yi kii nii yëpp sanction yi ñu def nii nii yëpp parce que dund gi dafa seer te gisuñ gisuñu gouvernement gisuñu ministre du commerce loolu rek la du leneen du leneen nit ñi ils sont est-ce que mhm. est-ce que yaakaaroon na itam euh, par exemple euh, le fait que suñu balance commerciale euh, déficitaire li ñuy jéggaani dafa bëri bu dee. Mhm. ñu ko xaymaa ci ceeb bi kese rek sax. waaw gis nga li ñuy jéggaani bu bëree. est-ce que loolu tam ñëwul yokk loolu tam yokk na mais dama lay jox beneen exemple. xam soble bi fii cent cinquante mille tonnes li ñuy consommer trois cent mille tonnes kon kay ëppale nañ cent cinquante mille tonnes xam nga kon nekkul ay manquement mais ko def mooy lan dañuy bay soble ba pare seetaan gu mu yàqu amul système de conservation amul dara moment bi ñuy récolter ñëpp ay récolter ndoo su ñëpp récolter ndoo soble bi day ñëwandoo day yàqandoo te mhm. soble boo ko bàyyee ci biir suuf si day gën a gudd fan. est-ce que tam nekkul problème soble importé bi le fait que muy fekkante. non moom laa lay expliqué xam nga soble bi nga xamante ne bi moom la ñuy bàyyee ci biir réew mi. Mhm. gars yi dinañ quatre cent cinquante mille tonnes. Mhm. mais quatre cent cinquante mille tonnes bu dee quatre mois nga ko bugg a écouler ci marché bi mais du sotti marché bi vingt cinq mille tonnes par mois lay jël. kon li nga war a def mooy comme am na ay zone am na zone yoo xam ne ñoom ñooy njëkk a yàqule soble nañ bàyyi ñooñu ñu njëkk a góob suñ deqee seen seen soble bi jaay ko ñi ci des bàyyi soble bi ci biir ñu def ko par zone loolu état moo ko war a organiser su ko defee ñu ne première zone bi yéen comme yen seen soble mooy gën a gaaw yàqu yéen njëkk leen a jaay su ngeen jaayee ba jeexal ñeneen ñi buddi seen soble bi deqi ko jaay ñeneen ñi noonu am na trois zones yoo xam ne bokkuñ bokkuñ bokkuñ bokk ñi ñuy ñor ñi ñor la ñi ñuy ñor la comprendre mhm. mais bu dee ñëpp kenn nangu taxaar kenn ñëpp bu ko génneendoo seen soble bi mais imagine plus que plus de pour cent soble bi day yàqu kon nga jàpp ne loolu bokk na ci li indi kon seeraayu soble léegi su fekkee ñoom seen soble jeex na mhm. dañuy importer soble ok mais soble bi ngay importer bitim réew su fekkee bitim réew ñoom seen soble yéen prix bi day yéeg su fekkee tam da nga wax ne da ngay bloquer bitim réew pour que ñu jaay suñu soble su jaay suñu soble su demee bay bu ko jeex da ngay ubbi bitim réew mais su fekkee da ngaa yéex a ubbi lan moo xew bitim réew le temps nga ubbi le temps gars yi di dugal le temps ñu koy tas fekk na soble bi fi nekkoon amatul. Mhm. kon njëg yi day day day nekk rupture bu nekkee rupture tam loolu tam day nekk euh, source de spéculation su ko defee gars yi buruxloo ci yokk boobu yokk prix. ok loolu yëpp état la. su ma la déggee daal instant yi euh, ci maanaam njëgu prix yokki daal état moo am liggéey boo xam ne war na koo def. exactement dafa am benn agence bu tudd agence de régulation des marchés mu nekk ministère du commerce ñoom ñoo war suivre li nga xam ne moom moo jëm ci mbirum soble bi. ñoom ñooy wax producteur bi temps nga war a jaayee mais boo wax producteur bi yow ne ko temps ngay jaayee nga ne producteur deux cent ngay jaayee ba pare nga ne commerçant bi lu la neex jaayee. ok commerçant yi jëndee noppi waxoo dara voilà la situation contrôle bi war a am moo amoon. moom laa lay wax. Mhm. moom parce que ñoom nekkuluñ fi consommateur yi ñoom commerçant lañ fi nekkal parce que bu fekkee da ngaa fixé loo producteur bi prix ne ko li nga war a jaayee ba pare euh, ki nga xam ne moom mooy commerçant bi. waxoo ko dara muy jaay prix bu la neex nga toog di seetaan voilà la situation. Mm-hmm. Euh, monsieur Ndao bu weesoo euh, tam jafe-jafe yooyu ñu nemmeeku ci wàllum denrée yi ak séeraay bi gis nañu itam côté électricité côté courant. coupure yi sonal na trop ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, sénégalais ñooy consommateurs yi euh, foofu tam bëggoon nañ xam euh, ana ban taxawaay la ci ASCOSEN am. ñun comme d'habitude rek xam nga fii ñun clamé woon nañ ci Sénélec bañ alamaan leen quatre milliards huit cent soixante neuf millions. pour mm-hmm. question courant boo xam ne ñëwul maanaam servir ñu courant. Mm-hmm. buñ continuer tam fa la ñuy jëm mu jëy donc li nga xam ne moom moo ci nekk mooy actuellement tey ji li ñu soxla ci installation am na de. mais ay yeneen problème mu détail lañ am yoo xam ne mooy indi lii loolu c'est pas normal. par exemple par exemple bu fekkee ne da ne euh, ki nga xam ne moom da lay jaay courant mu nga nga indi benn façon carburant boo xam ne moom nee na noonu moom du jël boobu parce que carburant boobu su ko jëlee ay machines la ñu am problème dañu am problème donc munoo am carburant bu doy mu mel nga am soble bu doy ba pare ñu ne am problème soble am na comprendre mhm. xam nga nit bari suñu waxee ne way tey jii boo gisee. Euh, euh, affaire yi métti mooy li ñuy jéggaani bitim réew mais soble bi fekk li fekkoon ne gérer nañ ko normalement duñ dem jéggaani soble jéggaani effectivement parce que li ñuy li ñuy bay moo ëpp li nga xam ne moom lañ soxla ëpp na de cent cinquante mille tonnes organisation des loolu yëpp nag organisation boobu état moo ci war a taxaw dimbale comme euh, kii producteurs yi ñu organiser ñu leen ci yoon su ko defee soble day ñëw di am toujours mm-hmm. mais amul njëriñ nga bay soble boo xam ne pour yàqu lu yàqu parce que ñu la war a encadré encadré wuñ ok euh, bu ñu dellu siwaatee si wàllum euh, courant bi euh, ñi nga xam ne ñooy consommateurs yi ak coono yi ñuy daj ana tey par exemple ban droit la ñu am ana tey lan lañ mën a def te ñu ngi subir coupure yi te métti na trop si ñoom. chaque fois bu fekkee ne da nga signé contrat ak lu mel ni Sénélec wala seen et cetera dañ laa war a jox ndox wala courant ci anam yi nga xamante ne bi moom la yoon wax. Mhm. su fekkee joxuñ la ngir seen yaafus wala seen yaacaaral. ñu dañ leen di kalaame bu ñu leen kalaamee dañ leen di sanctionné noonu lañ def kalaame kalaame nañ ñetti yoon Sonatel ñu ñu ñu leen benn bi trois milliards benn bi euh, quatorze milliards benn bi dix-sept milliards mhm. donc loolu ñun loolu la ñuy def maanaam bu fekkee leer na ne lii nga xam ne moom lañ ñu war a jox te mu nekk contrat ñoom respecté wuñ ko ñun dañuy dal seen kaw donc loolu ñoom xam nañ ko sax xam nañ xam nañ ne loolu moom voilà. à euh, li nga wax noonu est-ce que peut action yoo xam ne jot ngeen ko entreprendre euh, wax nga fi ne jotoon ngeen leen kalaame ak yu demee noonu. Mhm. Euh, actuellement nga xam ne nii c'est un problème tam persistant na que am nga fi jot a dox. waaw cest à actuellement ñun li ñuy def mooy chaque fois bu problème amee dañuy ñëw rapproché wu Sénélec da leen situation bi ñu ne bon dañoo am panne wala dañoo am nangam mhm. donc selon nu situation di demee ak cause yi nga xam ne moom lañ joxe est-ce est-ce que mauvaise gestion la est-ce que nangam est-ce que est yooyu la ñuy xool bu ñu xoolee ba yooyu nag ba xam nag ba xam ne leen fixé wu ne lii la léegi nag su fekkee affaire mauvaise gestion la wala yooyu ñun ñun dañuy wax ne ñun war a ñoo war a ñoo fay mauvaise gestion Senelec wala Sonatel wala euh, Sen'Eau mhm. donc seen yaafus wala seen yaacaaral ñun du ñun ñoo ko war a subir quoi waaw léegi nag comprendre nañ loo xam ne lu jógee foo xam ne la mën leen fekk na ñu ngi gérer normal mais loo xam ne ñoom ci ñoom la dépendre parce que defuñ seen liggéey normal loolu moom bu ko bu amee day chaque fois dal seen kaw. Mhm. waaw noonu la demee. Mm, monsieur Ndao jaar euh, nañu si <laughs> waxtaan xam na tey yan kàddu rek ngay. Euh, kàddu yi ñuy wax daal mooy gouvernement bi na jóg ci problème bu njëg yi njëg yi na ci jóg parce que nit ñi vraiment sonn nañ ndax xam nañ njëg bu yokk bitim réew mu nekk loo xam ne xool nañ ko techniquement mu yokk normal ñu ne yokk na un franc ñu calculer ko gis ne fifteen la war a yokk fii. ñu yokk 15 nit ñi respecté 15 bi mu avance waaye ñu ne dafa yokk 15 euh, euh, bitim réew ñu bugg a yokk fii 100 francs loolu moom duñ ko nangu kon nag gouvernement bi yeewu bàyyi caaxaan yi nekkee nii def liggéey bi ñuy xaar ci ñoom mooy lan mooy euh, respecté loo ñi nga xam ne ñooy commerçant yi prix yi nga xam ne moom la ñu war am si loolu ñu ngi lay jaajëfal. merci euh, di jaajëfal itam mbokku internet yi nga xam ne kon euh, ñoo ñu doon euh, bàyyi xel ci Seneinfo point net ak Seneinfo international di fàttali ne kon monsieur Momar Ndao di président association des consommateurs sénégalais lañ doon dalal ASCOSEN yaakaar naa waxtaanee nañ ci loo xam ne am na solo lool te dina jural njariñ ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi ñuy bàyyi xel dinañ jox daje kon lu yàggul dara rek ak beneen invité ci beneen i anam jaa ngeen